Bienvenue sur Salam Vision. mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala seydina muhammad nabil ummi wala alihi wa sahbihi wa dimi wa sallama tasliman auzu billah bismillah in waliyallah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokku internet yi nga xam ne yéen ñuy tur à travers suñu émission bi nga xam ne jotaayu xam-xam la ñu amaat mbégte tey dellusiwaat ci beneen jotaay ngir bëgg a waxtaanewaat lenn ci xam-xam ngir laat ko askan wi nga xam ne saa su ñi ngi koy bàyyi xel waaye ñi ngi bàyyi xel tey ku mel ni jëmm ji ñu togal koo xam ne nee naa àdduna wërngal këpp xam na ko wax dëgg yàlla rawatina ci réew mi ñu nekk waaye mbokk internet di sénégalais de la diaspora yi kenn ku ci ne xam na ko li koy waral ñu bëri ñu ngi koy leen naan moom daa wuyu turandoo ba ndax bu génnee ren balaa génne ti déwén macha allah ñu gën ko xam ci Serigne Moustapha Dieye moom la ñu dalal tey feggoog moom bëgg a waxtaanee waat ak moom ngir li nga xam ne saa su ne mi ngi ko doon def mooy di taataan ci xam-xam mu néew mu bëri ak ci ndimbal li nga xam ne suñu borom jagleel na ko ngir mu jagleelaat ko jaamu yàlla yi ngir jagleelaat leen ko tey jii amaana na xëy na jotaay yi gëjoon naa am waaye dara waralu ko woon lu dul jamonoog yi mu àndal yépp ak li nga xam ne tegu na tam ci ci ci kawam wax dëgg yàlla ndax lu ma téeméeri doomu adama bés bu ne téléphone yi di sonné subaa ngoon guddeeg bëccëg dëgg-dëgg boo ne ñëpp di leen mën a saafara seen i mbir. ku ko ku la dégg ku ko dégg ku ne. xam ne looy bëgg la looy yéene la waaye mën-mën neew fa. Hmm. ba tax na kon wax dëgg yàlla reproche bi bari na waaye itam nit ñi tey yell na ñu war ko mën a xamee ni ku bëgg a soxla soxlay téeméeri doomu aadama kooko amul jot. kon sañ sëñ Moustapha bala ñoo def dara ñu ngi lay nuyu di la ziaraat bu baax a baax waaye di la dalalaat ci biir jotaay bi macha allah bi naa laan salaamaaleykum wa rahmatullah Euh, waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. alhamdulilahi rabbil aalamiin. wasalaatu wasalaamu ala rasulillah. alhamdulilahi jalla jalaalu wa azza kamaal. sant yàlla rek. alhamdulilah julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. santaat sunuy ñaari waajur yi ak di leen ñaanal yàlla yërëm leen xare leen aljanna yaatal seeni bàmmeel yokk seeni leer di ko ñaanal képp ku ne ci biir suuf di ko ñaanal ñi tëdd ci hôpital yi yàlla defal leen wér leen yàlla defal tawféex di ko ñaanal ñi ñu tawat ne ci biir kër yi ak ñi koy doxaale di ñaanal jàmm ci réew mi jàmm ci àddina bi waaye di ñaanal ñi caabi féete ginnaaw yal leen yàlla teggi nattu yi nu nekkee ci daraja yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa di wax ni yàlla yàlla def jàmm ci réew mi hmm. yàlla yàlla def jàmm ci àdduna bi di masawaat coona hmm. waa àll bi ñenn ci àll bi waaye di masawaat coona hmm. chataala ñi nga xam ni dañuy bàyyi xel vingt quatre heures vingt quatre di nu déglu guddeeg bëccëg yàlla xam na ni ñi ngi ñaanal nag soppe bi hmm. di ñaanal noon bi macha di nuyu soppe bi hmm, hmm, di nuyu noon bi ndax nee nañu cin il faut mu amuk cafka <laughs> noon bi cafka la ci sa cin wallaay ndeysaan soppe bi cafka la ci sa cin wallaay wax nga dëgg bu ci benn bi manqué beneen bi doo neex du neex du neex ndax am na koo xam ni yàlla sax mën na ko bañ a tax di naanuk sàngara mën na ko bañ a tax naanuk sàngara mhm. waaye noon ba rek mën na tax ba du naanu sàngara wallaay ndeysaan <laughs> ak leer tubaarkala tubaarkala kon mhm. sant nañu ñëpp macha allah gërëm nañu ñëpp wallaay ndeysaan xëy na nag dafa am lu dul bokkayam mhm. waaw Mhm. onis ak bonis du benn. lay dèjà. <laughs> waaw soppe bi bonis lay am. Mhm. noon bi noonu ko jox onis bi rek. <laughs> lu mu ci am jël mooy yóbbu ko on rek. lay dèjà bu ci boole benn wax. asalaamaaleykum <laughs> salaam wa rahmatulah sëñ bi. macha allah jërëjëf Cheikh Moustapha Dieye ci nuyoo bu am solo boobu waaye itam ci leeral bi. Mhm. ndax wax dëgg yàlla li nga wax ne dafa am ci lu sama xel dem. moom mos a dégg ñu ni Serigne Touba. jéggal na jéggal na ay noonam. kon ki dem ba jégal ay noonam mhm. di naxante waat ak ñoom ngir mhm. delloo si waat leen ngir ñu toppaat suñu borom mhm. ndax suñu borom a taxoon ñu noonu ak moom kon bu demee ba jégal leen ëlbatiku di naxante waat ak ñoom ngir delloo si waat leen kon day daal di mel ni fi ne li ngay wax ni loolu lay daal di und rek macha allah kon suñu xel itam du jóg ci saa si la nga naan fi ne ku fi ba mag ñi sa dara du mat déedéet waaw loola de firndeel waat nga ko tey ji mag ñi daal mag ñi sa taal dama gisagul ku def lu nu def gisuma ko ci ñi fi nekk mm-hmm. ak ci ñi leen fi doon mm-hmm. ak ñi fi doon comme leen fi doonoon mm-hmm. ngir ñoom lan fa doonoon gis nga mag ñi dafa mel ni sama borom da leen defal lu amul fenn coow lii ngay dégg ñépp nag boo toppee ba ci biir dangay ngay ree ba tas ndax ñi war a coow moom coowuñu waaw coow li lépp nag lool la gis nga mag ñi ah mag ñi coowuñu tey waral téere yi ci àdduna bépp mhm. doo gis fu Seex Sidil Xaaji Malick bind lenn lu ñaaw ci Sëriñ Tuubaa doo ko gis ci àdduna waral téere yépp nag waral téere yépp ba mu mhm. daj mhm. moo tax léeg nit ki di wax lenn ci sëriñ bi mm-hmm. moo xam ci Cheikh Seydil Hadji Malick lay waxal mm-hmm. naan la la la sëriñ bi wax mm-hmm. walla ci maam borom Touba waaye léeg mu wax ci lu rëy loo xam ni bu doon dëgg la lan lay dugg ci roq di ko wax jarul mu koy wax dëgg la dee dëgg la bi nee na nangam. Mm. ba mu man sa tasum réew. Mm. bu dee dëgg la lan ngay dugg ci roq di ko wax. moom moo ma ci jaaxal de. déedéet sëñ bi daa dugg ci roq. benn sëriñ duggul ci roq. déedéet. fang dañu leen kon gaa ñi ne ci roq yi génne leen ci roq yi mm-hmm. ba roqamti koo mm-hmm. teg leen ci penc mi waaw ndax bu njëkk mm-hmm. mag ñi dañ daan defal mag ñi ñëpp nit ñëpp nit la woon waaye nag nit ñi dañoo mujj woon doonu nu woon ay nit leneen la nu woon ndax jëw jëfewuñu woon jëfey nit <laughs> ndax koo xam ni ay jamono naanu sàngara dérangé wu la woon mm-hmm. tëddeg jabaru jaamur dérangé la woon ànd ak jigéen dérangé wu la woon mm-hmm. amatoo lim ci soxna yooyu jël amatoo lim ci njaboot amatoo lim ci dara mm-hmm. tey góorug yàlla ñëw ni la ne ah ñëw leen ci wooteeg yàlla bi ñooñu ni dégg nañu mm-hmm. ñoo daan ub làmba yi mm-hmm. ñoo daan def leneen mm-hmm. naasiril xaq bil xaq bi sax dañu daan tànqal xasaay dañu daan tànqal waaye kat wuyu nañ leen ñooña noonu di dem noon nag nanu bàyyi xel bu baax du fi mas a nu <laughs> bàyyi xel rek loolu ndax sunu maam ya fi daan doon ay noon dañu fi jur ay doom ba baleen nanu bàyyi xel loolu jàppal ni noon yi ni ñuy donne Touba di ko donne Tivaouane mhm. ñoom it noonu la ñuy donne ci seen i maam ci seeni i maam alaa kulli haal xalifa yi général mhm. noonu day am wallaahi <laughs> ki bañoon sëriñ bi mhm. jur na fi ay doom am fi ay sët yoo xam ni duñu ma gëbb duñu mas a bëgg sëriñ bi lu leer ngay wax <laughs> kon du fi mas a jóg moo tax bu naan diw lam nu wax mhm. diw lam nu def mhm. lenn léeg daal moo may derange mhm. mooy nasaraan seenu gën ay nu nasaraan si di gëne moo yow nasaraan si taal sunuy maam num nii gëne <laughs> nasaraan si ni li fi yàlla wax du fi am nan la nii gëne nasaraan si ñun nu gëm Seydunaa Muhammad ni nu ñoom gëmunu ko nan la nii gëne li gën a doy waar ci adduna nag di ñi ña koo war a yërëm yàlla nañ ci yàlla musal mm-hmm. di ña koo xam ni yow danga ko war a yërëm nga di ko ñee waaw loolu bi la erreur waaw kay moo tax nag léeg-léeg nit wanteer boppam te yëgu ko te nasaraan si danoo ne ci li nu nekk waaye nan cay doxe moo doy waar mm-hmm. nasaraan si wërunu suñuy kawar ñoom sëfa wunoog lenn ñun nasaraan si ñuulaluñu seen lenn déedéet <laughs> ñun ñuy xeesal waaw kay <laughs> moo tax ndoxum siiti yëpp rayu leen. <laughs> tubaarkàlla tubaarkàlla yàlla na yàlla dolli jàmm tubaarkàlla. jërëjëf Cheikh Moustapha wax dëgg yàlla tàmbaleeguñu sax waaye fi mu ne yëf yi moom daa mel ni neex na ba noppi. Mm-hmm. mais bokk na ci bala ñoo génn ci ponk boobu ndax xam naa ne fa ñuy duggaat moom dinañ dugg ci jamono tolluwaayam. Mm-hmm. waaye fan yii dañ fi gis ku mel ni Iran Ndaw. Mm-hmm. coow lu bëri dar ko fi. ba tey jii ki nga xamante ni moom moo yor autorégulation wu mbooleem luy génn ci média. ne plainte ak lu topp mhm. yu jëm ci Iran mhm. ba moom mu jóg di dànkaafu gi patron wu Iran mhm. ci nee na ay kàddu yoo xam ne mi ngi koy génnee mu jëm ci ay xalif généraux fi nga laal léegi nag moo tax may indiwaat question yow noo déggee noo ko déggee noo ko jàngatee ak ban ban ban conseil nga ci doon joxe tey bu fekkee moom la wala ku mel ni moom mi ngi xalaat wala di def wala du def jëf ju mel noonu tey jii sëriñ bi maa ngi ziyaar bépp mbokkum taalibe ak mbokkum daara macha dafa am loo xam ni. buñ ko xasee ba wax. nit kookee li ngay sañati wax ci moom du bare. ndax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ko wax te lu yonent bi wax yàllaa ko wax xayrukum ko ta'allama alquran allamahu xam nga mhm. iran comme jàngalekatu daara la mhm. même bu waxewul ci orma ñun daanu moom ci orma bu waxewul ci orma daanu waxe ak moom ci orma ndax yàllaay sunu kilifa te léeg sax nu digg ci lu nu neexul ci moom yàlla léeg-léeg nu wax yàlla sax lu ko neexul ndaxte lu la neexul rek te nga xam ni lii du dëgg neexul yàlla lu yàlla santaane kenn newu cay neexul yàlla <laughs> xanaa loolu leer na wallaahi xam nga kon duñu dugg ci neex na yàlla ak neexul yàlla <laughs> yàllaa maandu rek nag mm-hmm. kilifa yi danoo bokk lépp mm-hmm. gis nga diggante Touba Tiwaawan Njaasaan kunti yu dara xajul foofu amul lu fa xaj lu dul jàmm mag ñi lool rek lan fi dox mooy li ma doon wax sànq mm-hmm. mënoo fexe ba wër ba daj ñoom ñi bokk lépp ci maam maaram bokk moom lépp ci ñépp ah, nu bokk lépp mu mel ni ni mag ñi doonoo wàll yante ku ci ne ñii jóge dem laayeen ñii hmm. jóge dem ñeseen hmm. soxna yi demee fa jaxasoo gi am fi hmm. njaboot gi bokk fi sax taalal foofu lu fa xaj dara xaju fa duma dañ nag di ko wax doon naa wax ni njuumte day am wallaahi njuumte day am man loolu rek laa gëm waaye su njuumte amee aajowoo na aajowoo na mhm. ki juum nu woo ko ba mu ñëw rek mhm. ni ko juum nga walla juumati nga mhm. waaw kese ndaxte dafa doon def ci tele yi ak ci rajo yi lu am solo nag dëgg yàlla ci njàngale mu metti ci njàngale mu naq di comprendre ndax nag man ànduma ku dul bis bu ne ma wax ko nit mhm. ànduma ku ko dul yàlla mi ma bind ànduma ku dul yàlla te ku ànd ak yàlla ànd ak dëgg mhm. xam nga mhm. ci li mu nekk man daf ma tënk ba mooy jàngale alxuraan jooju muy jàngal daf ma tënk ba manuma ci wax ci moom lenn lenn lenn même bu juumoon sax ba wax lu raw baa def lu raw sax te man naan rek juum na waaye ma koy ñaan suma sañoon mu bàyyi rek wax ji mhm. ndax imaam saafi yu dañu woon mhm. ah euh, euh, buntu musiba mi ngi tàmbalee ci tontu wax ci tontu wax waaw musiba mi ngi tàmbalee ci a tontu musiba wala buntu musiba buntu musiba mhm, mi ngi tàmbalee ci tontu tontu wax <laughs> ci mag ñi waaw waaw ndaxte dañu ko doon def ay détails mhm. di ko fëggi ay dàll di ko def ay mbir moom imam Saafi ni naan ko doo tontu ni nga toll ak li nga xam ak ni nga mel mu xamal ni leen ni buntu musiba mi ngi tàmbalee ci tontu mhm. <laughs> lay wax na dëgg moo tax sëriñ bi mhm. moroomoo ko moroomoo am na solo lool wax ak koo wax a wax am na solo ñépp ay jaami yàlla lañu waaye cër bu ne ak ki ko yàlla jox wallaahi la si <laughs> moo tax sëriñ bi man suma ma sañoon barke bi mu doon doxe neex na lool ñépp a nawloo ko ci mooy jàngale gi nu nawloo ko am ñoo xam ni sax jàpp nañu bu leen conférence wul seen conférence neexul bu nu ko dégluwul bu waxtu wi jotul te li muy def it am solo lool mhm. ndax bu doon njuumte la réew mi nga ŋàbba ko mhm. waaye dafa ne ci dëgg ba léegi ci wàllu jàngaleem googu mhm. xam nga mhm. am na yoo xam ni nag bu la doyee sëkk ba nga am ci lépp mhm. te nga mat ko sëkk bul ci boole leneen ci àdduna ndax réew mii nu nekk nag magasin bu chargé la ñuy bañ daan daanu fexe ba daaneel la daaneel gi mooy lan mooy duñ lay dugal ci gaam yoo warul dugg ba ci mën mii di toog di wax ak yow nit mën na may jéem a dugal ci gaam yoo xam ni su ma ciy dugg naa ci wax lu ma ci warul wax mhm. baa ma doxe ci nu ma ci warul doxe mhm. te loolu jara moytu la mhm. accident wu oto mettiwut accident wu làmmiñ moo bon la ilaha <laughs> bu lay yóbbu mën na ko am te bu moytuwul des ca waaye docteur ba lay sauvé dana jafe oh. moo tax lu jar bàyyi xel la mm-hmm. te gis nga wax dañu ko xeb waaye xanaa xamoo wax ëmb la su wasinee rek noon judd mbaa soppi judd wax nag laa la wax di ëmb la mm-hmm. heure bu wasinee noon judd baa soppi judd ah, moom heure bu génnee rek fi ne def tellu wala mu def jàmm léeg nga jur ci doom ju mat mm-hmm. baa nga jur ci doom ju manqué moo tax yàlla nanu yàlla musal ci accident wu làmmiñ man daal su ma sañoon ngir mbokk taalibe ak moromam mm-hmm. ma koy ñaani sëriñ bi bu dee tooñ na ko mm-hmm. te jàpp naa ni sax tooñ am na ndax wax jaa ngi dépassé mm-hmm. mu jéggal ko mu mu jéggal ko moom jéggal nu sax ñun <laughs> jéggal ñépp ndax yàlla defal na ko dayo boo xam ni man xam naa ni du lu Iran di wax déranger na ko ndax ba léegi déggoo ci kàddoo am ah, dara déranger wu ko jàppuma saxit ni wax jooj joojee moom la walla keneen la hmm. ndaxte géej guy tëmb cappa hmm. cig baaraam baa tànq cim kaas lu mu koy wàññi ko lu mu koy jariñ Umar bun Xataab dox na ci mbedd mi di dégg am ku koy rëbb ci xilaafa gu mu toog am ku koy rëbb ah lu gën a gagaraaw loolu yonent bi sallallahu lu mu déggut ala kulli xaal day am mm-hmm. te ku nu waxul ci yow wóorut wallaay de sax moo tax <laughs> nag lenn rek moo ma xaw a déranger mm-hmm. xottu jàkk loolu ëpp naay wax wannal masaajida lillaahi falaa tad'uu ma'a mm-hmm. llaahi mm-hmm. waaw xottu jàkka waaw ëpp di wax ci àdduna loolu loolu saaga jullit yi la mm-hmm. ëpp di wax moo tax ma ni la am na loo xam ni sax kenn sañu ko fàttaliku waaye nag nitu daara jiite daara di imaam ci daara ndax koy xam ne la ci daara imaam nga ci daara man manuma wax ci yow dara <laughs> dëgg yàlla. ndax yàgg ngay def lu baax te waxuma ci yow. Mm-hmm. waaw kon ma xaar benn sikk rek ma benn mbir bu amee rek na ko yàlla jéggal jéggal nu te sëriñ bii yàlla na nu jéggal allahumma amin te àq dafa sew allahumma la ñuy ñaan jéggalaale ci mbooleem jullit yëpp macha allah wala bi jërëjëf jéy amati na solo macha allah euh, li nga wax léegi rek dara yitteelu la ci ci mhm. jëmmam ji lu dul mhm. fi mu teg tànkam muy siraatul mustaqim njàngale gi mu nekk doon nitu daara ak li muy waxtaani li nga xam ne mooy ak dundam muy mhm. jottale kàddu yi suñu borom nettali xisa yonent bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam kon te loolee itam def naa ne ku ne ci ko war a mën a mën a mën a mën a war a mm-hmm. bàyyi xel macha allah moom solo lool mm-hmm. kon yàlla ñu sëriñ bi boole jégal ñun ñëpp mm-hmm. bokk na ci dugg bi wax nga ko léegi ci sa biir wax ni ko wax euh, ëmbal la soo xam ne bu juddoo bu juree mën a jur doom ju baax wala jur doom ju manqué waaye bokk na ci tey ji sëñ Cheikh Moustapha lii waral tey jii buñ ko xool ci suñu jamono avortement yi dafa bëri loolu ci réew mi ñii war a am doom ñu ne par force dañ leen di opérer mënuñu am doom ak seen sagooy bopp. Mhm. dafa bëri. waaw te lii amutoon ci jamono. waaw lu koy sabab ak lan yan ko yan ñooy conséquences yi ci nekk dëgg-dëgg. ñetti mbir mi ngi ci. ban ak ban ak ban. intérêt personnel mi ngi ci. moo ci ji dexe naa kon. intérêt général mi ngi ci. <laughs> intérêt général bi mooy lan mooy moyen la. Mhm. <laughs> yoo xam ni am na ñu mu arrangé ci àdduna bi. Mhm. ci seen kees mhm. baa ci seen médicament mhm. mhm. baa ci seen yeneen ki yeneen wallaahi <laughs> ndax am na koo xam ni buñ lay opérer il faut nga soxlay bagage yi opérer te bëggunu usine ba tëj baa intérêt dana am solo am na koo xam ni clinique am mu sañoon ni ku jara opéré mu opéré ku jarul opéré mu opéré <laughs> dégg naa la bu baax bàyyil de yàlla wàccewul ñaari arrivation <laughs> amul ñetti arrivage mhm. yàlla xalimaam bi dafa bind ba yeggal mhm. ñu démb ñi ñooy ñu tay ñi mhm. xanaa ñoom nu jéem soppi seen bopp nu bàyyi xel loolu <laughs> boo ñemee hôpital doo jug hôpital <laughs> te ni nga ñeme hôpital boo ko ñemee woon jàkka wër na yàlla ni dootoo dem hôpital déglul wax ji de bu baax <laughs> nu bàyyi xel loolu benn beneen bi si tegu mooy mag ñi dan daan tëj ba pare di vérifier xam est-ce que xam nga luy loolu tëj ba pare làmbaat daan léemu ba pare di mhm. vérifier mooy dañuy tëj kànnaar sax di xool ba xam kànnaar gi tëju na wala tëjuwul ñun nag defatuñu ko ñun danoo teelu a wóolu sunu bopp. Mhm. tëj rek wane ginnaaw dem waaw. <laughs> xam nga tëj wane ginnaaw gi mooy lan mooy. Mhm. luñ la wax rek da koy gëm yow. sa jabar ji mënul am doom da koy gëm sa jabar ji nàngam da koy gëm sa jabar ji nàngam da koy gëm bis bu ne ma wax ko nit bis bu ne nii ŋàññ sëriñ si te doo dem fenn ba fekk fa oto fekk fa margo ba néew bu fay oto bu fa toog di xaar koor <laughs> kon nga xam ni sutura yàlla weesuwul lool mm-hmm. ñaareel bi si tegu mooy opération yu bare dara waralu ko ñàkk bañ a teey rekk la te nu bàyyi it sunuy moyen ak sunu matuwaay yi nu yàlla dénk ci alxuraan wallaahi nit mënoon nay sax bañ di opéré waaw maa la ko wax fii noonu dama toog ak mag waxtaan ak moom mu ne ma opéré moom bokkul ci lu yàlla digle waaw waaye dama la bëgg wax ni fii nu toll bay wax ak yow mm-hmm. ñun danoo noot ba lu nu wax rek ni nu waaw góom bi day metti ni nu opéré <laughs> duñu xool lu xew hmm. waa léegi nag ma war la laaj cinq mille francs am loo xam ni bu ma la toppee laaj la cent mille du la ba loolu nu sonal ni mooy intérêt ba int waaw <laughs> léegi nag tollu nan foo xam ni intérêt yi doomi aadama yi jar na lu ne dafa am yoo xam ni sax neexul di wax hmm. ndax boo ci dee wax ñenn nañu yaakaar ni hmm. leneen la waaye lii dafa dul lu nëbbu lu ni dànga la te ku waxul dëgg wax leneen ñun newuñu ci yooyu mm-hmm. man daal suma sañoon mm-hmm. nit ñi xoolaat seen tooguwaay te bañ di sacrifice seen dund gi mm-hmm. ak di wanteer seen jëmm yi fu la neex dagg fu la neex yóbbu fu la neex nangam sàngam bu yàggee doo mës a wér ci àdduna am na koo xam ne bi muy déclaré jàngoro benn lu yóbbu woon hôpital fi mu toll mi ngi ci fukk ak benn waaw mais ndax garab yi ñu jox nga koy fajoo garab boo naan fi ne am na lu muy yeewaat ci sa mi ngi fukk ak benn mi ngi fukk ak benn <laughs> waaw ah, da man de lii taxoon ba ma dem hôpital ba nu ñëwaat ni ni la <laughs> am na lu la dalati am na lu la dalati ba léegi waxuñu doktoor yi ndax am na docteur yoo xam ni sax léeg-léeg da naan la mhm. demal faju ci mhm. <laughs> demal ñaan lu ji mhm. wala demal dugg ci yeneen ñoo nag comprendre nanu te docteur yi dàq dem ci sëriñ si ñaan lu ji beneen bi ci tegu sax ñenn ñi buñ koy def dañu koy nëbbatu ndax intérêt personnel bi am na ñoo xam ni buñ la yëgee hmm. indi lay jafe-jafe <laughs> waaye ñi ko xam dëgg hmm. dañuy cuuc fii di cuuc fee te nag loolay dëgg waaw hmm. ah, waaw taal bu tawee tàkk moom. ah jë loolay dëgg sax si ndeysaan ji ah loolay dëgg. <laughs> macha allah ah. mu doon lu am solo wax dëgg ah. yàlla. ñu gis ni tamit ba tey dafa am ay dafa am euh, wax dëgg yàlla conséquences yu ci am. avortement est-ce que ay rab kese rab dina ko def wala lan ak lan moo mën a indi avortement bu bëri ci jigéen. ñett dana yàq ëmb. Mhm. tiit gu bari tiit gu bëri. stress gu gu mhm. day yàq ëmb benn. Mhm. da koy yàq moom. voilà naqar gu bari day yàq ëmb. ndeysaan gu bare day yàq ëmb da koy tuur ci saa si. ndax rangooñ ñun dañu ko xeet oh te fu muy jógee waaye rangooñ day dajji xol. <laughs> day ubbi nit nit ngay gis bëtam fees dell mu jooy léegi bët yi dem ci biir mhm. mu dafa xeebi rangoñ waaye rangoñ li muy def kenn xamu ko benn te lii ci rangoñ mooy feeñ ci xol bi mhm. ba di commencé di fa liggéey leneen léeg-léeg nit loola jàpp ko ba muy palpewu wu mu naan dan maa liggéey seytaan yi daf ma jàpp fekkatu yow la ko tënk lenn la lii day yàq ëmb xalaat yu bari mhm. def def day yàq ëmb léeg-léeg jigéen sëyi jigéen ni ko doo fi masa am doom lee léeg mhm. sax wujjëm moo koy wax mhm. <laughs> léeg-léeg nag goro baa bëggul sëy ba am mu toog ni ko ni fii doo fi jure doom bu ko waxee nag mu toog di seetaan xamul lu xew waaw sànq ma nga asaaloo na boppam. li mu ko wax dëgg la. asaaloo na boppam. ndax bu dul dara sax làmmiñ wi koy mm. wax lan la. ndax baax na. Mm-hmm. nga jàppe ko caaxaan. Mm-hmm. lu ëmb mu tuuru. ngay tiit fu ne nga jëm fa. da koy def. waxaguma nag def def ah. Mm-hmm. <laughs> làmmiñ bi rek te tooke ba tooke ñaareel bi ci tegu am na ñoo xam dañ leen def loo xam ni heure bu nu ëmbee dañuy bëgg ni coow ak seeni jëkkër ba jëkkër ji tuur ëmb bi ba ndaw si am naqar ba ba tuur ëmb bi. mi ngi am pourtant gàllaaj de mi ngi koy def de. <laughs> ah ni nu kenn du ci wax <laughs> ni nu kenn du ci wax beneen bi ma la si wax mooy. li mm-hmm. gën a doy waar. rab da koy def moom. moom aay na ci torop rab moom day bàyyi sax ngeen ànd ak sa boroom kër sëy ba pare booy taxaw lépp wàccaat oh. da koy def waaw waaw ndoxum siti ko def waaye tuur ëmb moom rab naa la li gën a dee moom léeg sax ci bunte bi lay xaar ëmb buy am moom moom la balaa ni formé maay wàccee waat wàccee waat ko jii <laughs> dang da koy def waaye yooyu mën na am saafara te lu jara moytu la hmm. beneen bi ci tegu mooy nanuy moytu ci wàllu yàq ëmb léeg ngay yàq lu lay yàq <laughs> dégguma la de waaw léeg ngay rey lu lay rey te yëgoo ko waaw mm-hmm. waaw ndax la ngay rey xamoo lu mu indi boo demee ci sëriñ ñett yu wuute yow ku la woon nekk ni la ni danga am doom ju ñuy dégg mm-hmm. loo ëmbatee ci moo xam nag nu la ko yàlla joxe waaye tey ji yàlla xam na ni am nañu faatu ci yàqum ëmb barki yentu yàlla muhammad lanu doon rey moo leen rey te mën nañu ko sax suulaale te fekkete yoo sax deewut sëñ bi yaa ngi wax lu doy waar waaw lu doy waar kay <laughs> waaw moo tax mani la lu waay di def bul xam kaw gi kese yam ci de mhm. xanaa xamoo léeg-léeg nga yàq borom bopp ki nga yàq bu moytuwul docteur ba sax fa la ñuy jóge wàccee ko ba cent fa lay deewi je leer yaakaar ni dafa feeñ kese déedéet li ndaw si ëmb mooy wane ni mu toll mhm. <laughs> la laalaake déedéet yàlla nee naa la yàlla amul ay arribas nii gauche ak droite bi li mu doon maye mi ngi koy mayee waaye fan la ko def loolu mooy wax ji mhm. <laughs> moo tax nag mani la mhm. lu waay di def na ko bàyyi xel mhm. maa la ko wax fii macha te sax lépp du ma ko ñeme wax si kaw ante <laughs> waaw moom lépp moom bu ah, génnee defe naa ne am ñu ñëw fanaan si ci buntu kër gi tey jii nii ndax. Ah. Euh, euh, dëgg yàlla réew mi ah, jaxasoo na lool ci ci xëy nag da koy def waaw da koy def. Mhm. waaye naa la wax lenn bi rab di def garaawul manes na ko saafara. Mhm. waaye nee naa la yow mi yàq ëmb. heure boo amee ñetti ëmb gëmal ni sa dund bu la kenn tegalati kaamil ngay waat naan da nga wér dootoo wér. sa dund gépp nag maa la ko wax. ñetti ëmb yu yàqu. ma ne kay ku ko am. ñëwal ni ma sëñ Moustapha dara dalu ma ma jël sama loxo tàppale fi nga xam ni su waxtu tel jotee moo lay bëgg a rey duutoo wér. maa la ko wax fii tey maa la ko wax ñett koo xam ni laa la ëmb na ko man maa la ko wax te balaa muy amul sens bu may tuw li muy jàmbat ci dundam li ci mujje tànk lay doon ak ndig <laughs> te dootul wéer nag moom te day dem bay lëndëmal say bët faf oh. loolu damay àdduna bu yàqu fekkate yoo nag am na lu la ci alak te yëgoo ko bu ko yàlla da dogal nag amal juróom-ñaar mm-hmm. du la wàññi dara mm-hmm. dogalam la moom waaw amal juróom-ñaar mm-hmm. nee naa la sëriñ bi yàlla mënul liggéey ci entre mënul liggéey ci biir euh, société am def ca la mu cay def def ca la mu cay def ba pare yow nga bëgg ni yàlla lii nga def dama ci man mane yow ki la manal dara loo ko manal ki la sàkk sàkk sa say borom sàkk ci li nga ne moo tax nag dama leen di may sens lool rek <laughs> nee naa la nag lu ma lay wax rek mhm. am na fu ma ko teg wér na du koy nangu nag <laughs> ndax arrangé wul ñëpp waaw ah, wallaay waaye nag ñi ñiy dund dëgg ku ci wéet sa biir néeg xam ne li nga wax ni fi mu toll nii moom kaamil waaw am nañu loolu wokkata kenn ku ne la la wokk ndax bis bu ne su ma defee émission sa nit ni ma ni ay nit sax ni ma mhm. Serigne Moustapha man de dafa mel ni man nga doon waxal waxal ndeysaan <laughs> kon loolu ak rek mooy affaire bi. wallaay ndeysaan macha allah. <laughs> jëf Cheikh Moustapha ci leeral bu am solo boobu bokk na ci tamit tey ji fi nga bàyyee sànq muy wàllu rab. Mhm. Mhm. ñu gis coowal rab. xalif général des jinne xalif général des rab ak nangam mm-hmm. nangam ci rab mm-hmm. mais man tey question bi may laaj dëgg-dëgg est-ce que mm-hmm. tey ji amul ñoo xam ne dañuy yor gàllaaj goo xamante ni ñooy faral di daaneel nit ñi ñëw ci ñoom wala bu ñu doxee ba dajeeg yow sax seen li ñu takk mën a yëngal sax say ay say rab ba ba mu lay daaneel ci mbedd ak yu mel noonu lu ko raw sax am na ndax gàllaaj bu mënee dem ba jigéen romb la ëmba mën a tuuru ca saasi oh am na <laughs> gallaaju làmb yi lu ko gën a doy waar léeg dana jàpp nit ba gàllaaj googu nga takk yow booy dox di dem ci fi nga jëm fekk gisoo nit ñu xeex gàllaaj gi dan naan la gisagoo ni jàpp na il faut nga gis nit ñu xeex ba dari tuuru <laughs> am na ci gàllaaj poto waaw tey nit dana dem jàngi business boo xam ni lan la ciy jublu mooy naa diwoo loo xam ni du ñëpp nag ngay tiital moom. <laughs> ah moom du ñëpp moom ngay daaneel ndax ah, da nga daaneel loo xam ne si ngay daanoo. walla ku dell. <laughs> ñëpp a ngi fi. waaw ci nit ñi sax. ñi mhm. yàlla bind. Mhm. am na ñoo xam ni sëriñ bi boo leen di daaneel di daanu. Mhm. te doo leen daaneel ndax yaa ñoom yéenay àndanu tarax laay nga yaakaar ni yegg na noonu fekk yeggunu ñooña jéng yow nga yegg suuf hmm. dama la bëgg a wax ni am na loolu am na léeg-léeg nit dem ci foo xam ni dafay fajoo gën fa jële feebar fekkatu yoo daanu ko fa defloo muuf mouvement ba deritam des fa te yëgu ko am na ñuy liggéey ci wàllu derit hmm. di ko signé pour mbooloo di leen topp Oh. pour nit ñi di leen ñu wuy si yow xamoo lu xew dama yaakaar malaat bu feebar ba yegg fa nga ca hôpital ba looy yooxooti amul solo ko mm-hmm. ah. ah. pikiir bi kay moom dala war a laal nga ni cocc mm-hmm. baa nga ni yàgg rek waaye gën a tépparli ko gën a leneen gis nga nee naa la li ci xew yëpp kenn mënu ko wax sax yàlla xam na ko lenn rek laa lay wax ci àdduna man laa la wax ni mhm. am na loo xam ni bu desoon ci loolu ma xooli leneen lu ma def mhm. ndaxte am na loo xam ni du la jig ba mukk ci àdduna mhm. yàq àddunay nit du la jig mukk ba àdduna tukki nee naa la am na yu nuy jëfandikoo am na nit ñoo xam ne foo leen seeni tiit la la tiital daaneel na la <laughs> nit deful loo xam ni loo ko laaj da la koy jox. waaw ah, amul. a ah, pour lan nit ki warul man di daanu daanu gën a yomb sax. <laughs> moo tax nag léeg-léeg ci liñ lay wax pour nu dëggal seen bopp dañuy créer loo xam ni il faut nga gëm leen. Mhm. ba pare fan yii rek dafa commencé waat am ci yenn école fii Dakar daanu yu bëri xale yi daan daanu fi ne fan yii. dafa bëri waaw bu dee école yi moom rab yi ñooy bàyyiku te rabi sacrifice yi léegi dafa bari <laughs> waaw ah, te école yi danga ciy gis ay xeetu ba pare léegi sunu réew yi amatul frontière. Hmm. ñi war a dugg. ak ñaareel bi ci tegu it. kilifa yi nu daan aar dem nanu ba xam ni nit ñi li nu gëm bareetul nu taxaw di leen seetaan ci ñenn ñi te bu ñëpp a seetaan noonu sax musibaam ci réew mi. bu dee dëgg rek moom am la waxante. Hmm. <laughs> am na ñoo xam ni dañ daan tëye kuris boobu. ku fanaan ci réew mi te bokkoo fi mhm. barke yonent yàlla Muhammad doo toog ñetti fan defoo fi loo xam ni ñépp naan dafa war a génn réew mi am na fi daan na fi am mhm. waaye nag léegi <laughs> kenn mënatul xàmmee li fi xew beneen bi si tegu ñi nu war a aar mhm. ñoom ñoo sax jublu ci yooyu ci ñenn ñi am na kilifa yoo xam ni dawatuñu sax noppi muus lu nu jot takk lu nu jot dugal seeni kër xamoo lu tax nu koy def mm-hmm. am na fi de surtout bañunu dara mm-hmm. lu nu jot takk ragalunu dara ah. mm-hmm. <laughs> yàlla ji daal moom dee ko seen nii si kaw rek nañuy waxtu yàlla nii yàlla nii ci kaw rek waaye leer na ni leen sax am na yu leen topp ba nit ñi di mel yu ci baree bare loolu du dëgg moo tax mani la am na loo xam ni xam lépp sax di ko wax ëpp mhm. moo tax mani la man xooluma ci nit ku manti doon ci àdduna mhm. xooluma yow nit ki lan lan moo la neex ak lu la naqari lu dul li neex yàlla ak li ko naqari mhm. ak koo mën a doon ci àdduna man lu may xool ci yow day fekk neex na yàlla moom ba pare man su mm-hmm. wutuma lu ma neex mm-hmm. ndax man bañu ma koy saaga suma ndey mm-hmm. waaye dama wax ba tàyyi ni boo ko defee defaati ko na ko bëgg a defati mu tëla ndax dafa doon loo xam ni du lu may jéggale moo tax mani la wax dëgg bi bañu ma ci fan wu gàtt <laughs> waaye bëgg naa ci dund ko riis wu gàtt moom lu ma ci waaw moo tax ma la am na lu bare lu say xew mm-hmm. moo tax léeg-léeg sax yow li la yàlla may dangay bëgg sax gëmm mm-hmm. gëmm carrément sax ndax am na loo xam ni dangay xam ni lii du dëgg ci ñi ko doomi aadama yi di jëfe mm-hmm. waaw du sax jeex nag waaw <laughs> moo tax ma ni la ñun te ñun ñoo war a aar waaye ñun ñoo gën a doy waar léegi mhm. ndax lan mooy na ma ko àdduna jarare surtout surtout dama koy wax dama naan fi ne damay xoolee la nga gis fi ne sénégalais est-ce que du sénégalais moom bëgg bëgg yu mystique bëgg yu ñàng bëgg yu garaaw tax na ba fi mu toll ni mu nar fi wedd yàlla parce que mooy li nga wax léegi yàlla moom tur la rek ak benn boobu moo xam dañ ko teg nii ci kaw rek hmm. mais réellement lay tax ñu jël seeni i koppar wala seen i koom wala seen ngëm-ngëm dëgg ko mooy tey ji ay bopp bukkeeg ay ay yaram yi goloog ay yu kenn xamul armeel yi sax léeg-léeg nga ne xanaa du néew yee taxoon. dama gis naa ku fay net pour mu dugal ko ci armeel trois heures du matin. jox ko suufu bopp néew barki yéentu yàlla Muhammad nee naa la lu ne lan fay def waaye lu nu fa def la koy dindee ci armeel yi. naa la wax ci armeel sax ay yu doy waar te doo sulli néew doo tooñ kenn. moom armeel nee naa la ni lu nu fa def rek la ko fay dindi moo nga fa néew a doy waar Mhm. waaye nag waxuma néew yu ni sulli man waxuma lool mhm. ndax man dama ni nit desewul dara ci dundam lu dul fa mu tëdd fa mu tëdd wallaahi ba bis ba ko sunu borom naan ko na nga jukk mhm. desul dara ci dundam te na mu fa tëddi xamoo ko kon man laa la wax ni li ma xam ci doomi aadama ci yooyu bare na waaye nag nee naa la bu doon fanweer la ñaar laa ciy bëgg di wax te nay doon yu sell yoo xam ne doo tooñ kenn ci àddina waaw mu waxoon naa ko keroog mhm. bàmmeel bu amagul juróom-ñaari fan mhm. lu mu mënul dindi amut <laughs> maanaam néew bu ñu denc amagul juróom-ñaari fan ñaari fan mook suuf mbeexam géej mu ker tiim ñoo gu yàpp am na yu ca ne mhm, mbeexu géej mu ker tiim waaw laa <laughs> ilaaha illallaah <laughs> oh macha allah <laughs> non Armel moom damaa bëgg ñu utal ko te bu spécial. waxtaanee ko ko nga xam ne ci loolu rek lañ koy tënk. waaw Armel ak yi mu àndal. ak yi ci biir yëpp. waaw ndax jaam yàlla yi sonn nañ sax Moustapha. waaw waaw xam nga nit danga naan ko liggéey na la dem ci armeel rek addunaam tukki. te wallaahi addunaam war na tukki ndax armeel ni mu toll. Oh. ka fa tëdd na mu toll. yàlla mi ko rey ne na mu toll la mu ca santaane na mu toll yóbbaalewul lu dul malikaan perkaal kese la yóbbaale yow xooloo ci moom dara ni ko massa bis bu ne yaa ngi solu ak di sumeeku mhm. xamoo nu mu ko tëdde xamoo bu war yun koy laaj mhm. xamoo lu mu fay fekki nga fekkati ko fa am loo koy njege naa yoon tooñ nga ko ba ci kanamu yàlla càngaayam war naa lam googa tooñ nga ko ba ci kanamu yàlla waaye nag amul mucc <laughs> amul mucc Cheikh Moustapha kooku faaw ñu toppaat ko waxtaane xam nga nee naa la du ñëpp ngay rey ñëpp de dee <laughs> xam nga sëriñ mas na fi rey benn soxnas mécanicien mhm. daggate ko mhm. da yaakaar ne est-ce que loolu kese la woon est du dafa am lu ko topp hmm. waaw <laughs> am na fooy toll soo bëggee siiw siiw soo bëggul siiw siiw soo bëggee feeñ feeñ soo bëggul feeñ feeñ la lay feeñal nag xamoo ko la lay siiwalit xamoo ko léeg nit toog ni dama am bës wax na dëgg de bés ba dafa xam fu mu jógee <laughs> waaye yàlla boo am bés bés bi it doo xam fu muy jógee bés bi doo xam fu muy jógee laay <laughs> laay la la oh jërëjëf sëñ Moussa <laughs> wallaay amatina solo li la tax gaañ di la namm lool macha allah rabbi mais bokk na ci tudd nga ko léegi nii sëriñ bi reyoon ndaw sa jabaroo jàmbur daggate ko def ci saako mhm. mais cheikh bi tam ñu gisaat fan yi weesu dee yi bëri ci réew mi lool mhm. nit ku rey jabaram ak i doomam mhm. wala nit ku rey ay doomam ndax jote gu mu jote ak jabaram jote goo xam ne kenn xamul maanaam moom bëri na ci réew mi ñii ñi ngi naan sacrifice la ñii ñi ngi naan est-ce que daa am yu leen yu leen dugg yu leen koy defloo mais tey jii yow sëñ Moussa loolu ban jàngat nga ci am ak ak ak ak ba nga ci mën a jox doomu aadama yi ngir ñu mën cee mucc lenn daan laa lay xamal <coughs> muy gàllaaj yu bare moom day xabtal nit moom ah, am kàggu yu bëri yoo xam ne. waaw moom gal doonoo sax nu lay sëf. ni hmm. lay liggéey rek. ok day xabtal nit. day tax nit xëy rek dem yoonam. Oh. waaw gàllaaj yu bare yun lay def day tax nit xëy rek bu sañoon oto rey ko mbaa sax oto koy rey kon su ma doxee ba dajeeg sama waa ji muy dox diggante parcelle parcelle ba Pikine di dem di aller retour suba ba jant bi so noonu la koy toppee sonn ci loolu <laughs> gàllaaj yun lay sëf rek te sa organe lay yàq mi ngi mel ni oto booy teg rek te kaa wàcc yooyu nag day am léeg-léeg nit bañ sëyu ñaar ñuy sëy li mhm. ca def lu ne oh. bis bu déggee ni ñooña faatu nañu ci reyante na xelam dem ci lu sore sore ndax loolu la waxoon nag bëgguma nu am jàmm waaye a waaw amuñu jàmm ba dem alaaxira boo xalaatee am jàmm doo nit wax dëgg yàlla pourtant mi ngi am de man moo tax am na lu des a ci nit kuy rey boppam te loolu yàlla rekk nu ko mën leeralal mhm. mooy ban cause la deewe <laughs> surtout loolu nag bën cause la deewe ki baayam yor ay milliards nga fekk ko muy sàcc laaj ko sàcc gi lu ko waral voilà dëgg yàlla ndax dëkk ci milliards ba noppeel ba di moom waaw a ah, xoolal rekk lu ko waral mhm. <laughs> nan la koy traité walla nan lañ koy maltraité <laughs> am na lu xew. moo tax sëriñ bi am na loo xam ni yàlla rek la leer. Mm-hmm. ñun leerunu wallahi wa rabbul kaaba moo tax lu mën a xew ci aad àdduna na nga utiliser rek in jaakum faasiqun bi nabayin fatabayanu am na loo xam ni xool rekk moo nga ci man waaye li ci biir a biir yàlla rekk ko xam mm-hmm. moo tax ku mu mënti doon ci àdduna na nga bàyyi xel bu baax a baax tàqale nit di ëpp na te doy na waaye nag fexe ba ni reyante te bi nga am am na gàllaaj yoo xam ni buñ la ko defalee ci takk ko tiimale ko sa kii nii yàlla bu mu doon ay cunxóor nga tiimale ko ci safara nii musiba day am waxuma sax jëkkër ak jabar de njaboot sax dunu juboo te ni nu amul solo <laughs> waxoon naa ko keroog mm-hmm. nit jarul muy xeeb dara ci boppam ki nga mënalul dara daal kenn la moom. Hmm. ki nga xam ni foo ko fekk mi ngi sangoo saabu néew. saabu buñ sangee sangee néew. waaw ku koy sangoo moom kenn mënul la dara. coow lu mu dugg dana ci génn ndax néew lu nu naan faatu na faatu na buñ ko xasee suuli rek. coow li seen ak loo daanu daanu nag loo fa jooy jooy jooy. wallaay <laughs> lépp sax du ma ko man a wax. sëñ bi néew armeel ak yemu àndal daal dañ koy denc tënk ko parce que yow génneewaat nga fi mu ne secret bu doy waar fi mu ne saabu néew. saabu bu ñu sangee néew ba noppi. sëriñ bi gisoo ba tàyyi nit xataraay ci néew boo xam ne nanu naan faatu na. Mhm. fan lay mujje ñaari fan ñett da naan xanaa du kii moo doon jooy néew ba. ah lépp kenn mënu ko wax sax. <laughs> wallaay xam-xam xaw ma bokk ci saa su ne nga wax ko waaye daal bés bu ne nga wax joxaat jaam yàlla yi firnde goo xamante ni waaw xam-xam daal xaw ma bokk ci macha allah rabbi jërëjëf Cheikh Moustapha uh-huh. uh, amante na solo xanaa refi ne ñu njëkkanteeg waxtu wi gannaaw dab nañu uh-huh. mm, na ci tey buñ ko xoolee jamonoog tolluwaayam uh-huh. réew mi jaxasoo na nit ñi àndatuñoo dal ndax defe naa ni yàlla bala nga koy mën a bàyyi xel faaw nga ànd ak sago wallaay ndeysaan mais nit sago élection yi di mi ngi nii di ñëw. Mm-hmm. suñu bokk politiciens yi. état bi. Mm-hmm. nga xam ne réew mi moom bu ñuy wax moom réew mi fi mu ne taxaw benn place defu ko moom. Mm-hmm. ci rag-ragi la dëkk. naka la nit ki nga xamante ni bëgg naa mucc. naka la mën a def ba mucc ci biir situation bu mel nii. gàllaaj gu daan am ci élection yow ma sa dégg. élection yi ñoo koy raw. maa la ko wax bu doon cent pour cent la ñu ngi ci cinq cent yi ci mystiquement. te élection yi du élection présidentielle élection locale la maire bu gox la barke yonent yàlla Muhammad maa la ko wax sallallahu alayhi wa maa la ko wax fii man maa la ko wax nee naa la man li ma gis mhm. élection yii laa la wax fii nu toll ñi waroon xeeb baa naroon bàyyee danoo bàyyeetul dara ndax danoo xamul ci ban bi nu toog laalo la walla banaana la <laughs> man nga jooyoo ko dem baa waaw xam nga <laughs> dama la bëgg a wax ni fii lu toll ñoom xam nañu ni nit ñi ci boppam du carte mooy falati fii nu toll mhm. waaye nan la ñuy def ba nit ñi demee neneen walla ki ni xëccool nan la ñuy def ba ndog ndog am ci moom mhm. yu metti sax nag hmm. yu metti sax te loolu nag yamul rek ci ay wax mhm. mystiquement nag laa la wax galaaj piir <laughs> ah, réew mi kenn du fi sikki sàkk galaañ nag am na yu bari yu fi jot a kii yàggul dara de. Mhm. yu fi jot a xew te yàggul dara. kenn du fi sikki sàkki gàllaaj mhm. coow lee fi ne rek. Mhm. <laughs> waxante dëgg te yàlla tax. moo tax mani la. na njaboot gi ci réew mi. bàyyi xel seenu njaboot. te aar seenu njaboot. yàggul dara nit ñëw na fii benn xale ngaam bi genn wàll géegi néew ba toll nii. ci biir kalaasam bu mu doon jànge la ko dale. te leer nañu ni am nañu rax ci kalaas bi te duñu ay nit moo tax li gën a doy ci àdduna di bàyyi sag njaboot rekk ni wëndëng wëndëng baaxul ëpp naa def ci àdduna njaboot danga koy aar sa kimtulaay kàttan hmm. léeg-léeg sax boo mënul dara sa njaboot toogal ba si yàgg rek nga xoojal leen laaj ca ndox rek jox leen ku ci de góox laaj laaj ke seetaan ndeysaan wallaay <laughs> ndeysaan <laughs> jërëjëf Cheikh Moustapha mm-hmm. mais fii jamono tollu tey xam nga boo xoolee sama classe gi mm-hmm. six heures du laa yeewu génn naa sama kër mm-hmm. bala maa ñëwaat fekk naa sama njaboot tëdd kooku lan laa mën a def ci sama njaboot xam nga boo xëyee balaa ngay génn war nga jàng juróom-ñaari ayatul kursi lee moo ko sa njaboot jàng laa xoloo laa xooti ilaa billaa téeméeri yoon lee ko sa njaboot <laughs> kese nga nga nga nga yam ci. Hmm? juróom-ñaari waaw bu la neexee sax jëlal laa ilaha illa anta subhanaka téeméeri yoon rek. nga ëf ko ci ndox sax raayoo ko ak sa njaboot ku ne fa mu tëdd baa dañuy jàngi sax nga defal leen ko te yàlla tax est-ce que xam nga ni waxuma la kaaraange. Mhm. est-ce xam nga ni xale yooyu kenn du leen yooxoo mucc mukk naan leen. si la ngeen compo baaxul est-ce que xam nga ni xale yooyu kenn du leen jaawale di leen tam dëmm est-ce que xam nga ni xale yooyu noonee yàlla xam na ni kenn du leen yërëm est-ce que xam nga ni xale yooyee du nu dox ci mbedd ba daanu ngir feebar maa ko maye te yàlla tax laa <laughs> oh. <laughs> lu waaye mënul maye nag da ko amut akaleer gaa yi maye wuñ ndax amuñu lu ñuy maye ku amut loo maye moom fi mu toll nii wax dëgg yàlla doo maye. bu la yàlla joxee soo joxewul. Mhm. lan nga koy sàtte. sëñ Moustapha kàddu gu mujj gi ci jotaay bi ak message bi ngay yóbbante askan wi ñépp mhm. lan lay doon tey. ci man. Mhm. ci ñun. ak ci ñoom. ci ñunu xam ak ci ñunu xamul. muy doomi aadama ba ci jinne mhm. ndax ñoo ànd di jaamu ak mhm. nu moytu tooñ bi ci njëkk loolu rek laay dénkaane ndax seetaa la ñun xeeb nanu tooñ mhm. waaye tooñ mi ngi yàq sunu àdduna feebar yii nu nekk nii ma lay wax ak yow tooñu nu ko yóbbi oh. billaahi lazi laa ilaaha maa la ko wax tey tooñu nu ko yóbbi xoolal bi réew mi xawee dal tuuti àdduna bi dal tuuti am na lu nu lu nu tënkoon mm-hmm. mu xaw a wàññi ko nee naa na bërit nu mel ni dañu fàttewaat mbir yaa ngi yógaat ci yeneen ni mbir yu kenn xam mm-hmm. nu maytu tooñ mm-hmm. loolu rek laay dénkaane beneen bi may dénkaane mooy di baaluwaat ak ñëpp ak di sant nag surtout soppe yi nuy teewlu soppe bu ne am nanu bis bu ne dama koy wax nit ma ni leen man de xam naa man Moustapha Dieye ci sama bopp ay nit rek soppatun ma <laughs> ndeysaan ay nit kese soppatun moom mm-hmm. li ma soppa dépassé nay nit mm-hmm. <laughs> loolu nag xam naa ko <laughs> moo tax nag sëriñ bi mm-hmm. bu ma amee dix million am ñaar fukki junniy asaka lu may wàññi sëñ bi dóor lay def wala sax jaar ci benn mbaat bu gën a ñaaw bi xam ni man sama ngor may ma ko sama ker sa mooy lan la may wàññi wax ak fukki nit mhm. juróom-ñaar yi gëm mhm. ñett yi ne fa di ngor mari yow nga ne fa santoo yàlla mhm. xanaa yow santoo yàlla dëgg dëgg kon yow ma fay wax yaa fa dee mënoo fexe ba tere maa wax li may wax dama ko xam li ngay wax xamoo ko <laughs> kon bul sonn ci loolu soo bëggoon mel ni man mhm. dooma mukk ci àdduna mhm. kon man nawloo ma la wax nag man baax na na mhm. noon yi yokk <laughs> ndax yàlla si la may dimbalee si la may suturaale nee naa la sama ndey daj na loo xam ni man awma lu may tiit suma dund du man kese nag la sama ndey daj de <laughs> waaye nag ku ci ne sa pantere nga xam yàlla na nu sunu borom dolli sutura seen télé bi yàlla na ci yàlla def ndam yàlla na leen yàlla sàmm yàlla na leen yàlla taxaw lii rekk lay dénkaane jërëjëf Cheikh jërëjëf Cheikh Moustapha Dieye ci waxtaan wu am solo bi waaye jërëjëf tam ci jot gi nga xam ne yaa ngi koy jàppandalal rek ngir bëgg cee dimbali jaamu yàlla yi ngay wax saa su ne waaye itam jërëjëf ci tawféex gi nga xam ne tam yaa ngi koy may askan wi ngir kenn ku ne fa mu ne bu mënta jot si ci yow it nga defal ko tawféex ba fa mu nekk itam mu mën a jël li nga xam ne dénkaane nga ko fi mën cee musal boppam muccal ci itam aw askana wala aw jabootam kon moo tax jërëjëf yooyu ñu boole ñetti jërëjëf ba ñeenti jërëjëf di ñaan yàlla sa borom subhanahu wa taala moom mi am sañ mën tey def yal yàlla gën a dëgëral sa taxawaay dollee guddal fan wi gën a yokk xéwal yi ba mu saawoon baawoon ndax koo xam ne kat wax dëgg yàlla dërëm bi mu am mi ngi koy bokk ak yow boo amee million itam boo boo dees gor boo tëddee xam ne dina ko bokkaat ak yow ndax lii ngay maye nii rek askan wi kenn ku ne fa mu toog bëggoon a jot ci yow wala bëggoon a gis sëñ Moustapha mm. mënu koo gis mënu a jot ci yow mu dégg seetaan vidéo bi jaara ci dimbali boppam dimbali ak njabootam defe naa jaamu yàlla gënt rëy ponk yooyu noonu kon macha allah moo tax ñuy ñaan sama borom bàyyi la fi ba ca kanam a kanam waaye itam mboolem internet yi nga xam ne yéen a ngi leen indil ci fan yi bu bees tàq boo xamante ni lépp loo xamante ni waxtaan la wala question la wala jaaxle la wala njàqare la ngeen bëgg ci ak leerlu Cheikh Moustapha dina leen ci dimbali ba mu gën a yaatu ci chaîne boobu nga xam ne ñi ngi koy ñi ngi ci nekk di ko liggéey chaîne bi moom amaana mi ngi dund bu yàgg ba tey waaye jamono yi xëy na jot geek ni mu demee woon ba tax na fi daal ci jamono yi moom dinañ leen ko ubbil jox leen tur beeg yépp hmm. ngeen dem abonné ci lu ci waay bëgg hmm. ci gëstu ci xam-xam ci jaaxle ci coono gum ci mën a doon hmm. boo fa duggee vidéo boo njëkk a laal amaana mën nga cee dajeeg tawfeex goo xam ne dina la musal ci lépp sant leen sur Salam Vision.